mooy conseil départemental bi nga xam ne mooy conseil départemental bu Thiès bi ñu seq dañu waxtaan ci suñu biir ci conseillers yi nga xam ne ñoo nekk ci Benno Bokk Yaakaar ànd defar Thiès ñenn ñu fa nekkoon ak ñi nga xam ne moom lañ doon woowee troisième voie di kàddu askan wi ndax kat li ñu yor mooy li nga xam ne moom mooy Thiès doxin boo xamante ni moom moo taxoon ñu fal ñu euh, beneen mbir bi mooy dañu respecté trop li nga xam ne mooy population thiessoise yi nga xam ne ñoom ñoo ñu joxoon seen kàddu boole ci ñu seetlu ni conseil départemental bi ba ñu ko taxaweelee ba léegi ñi nga xam ne ñoo ko jiite dañoo lànk bañ ne du ñu liggéeyal population yu cees yi la ñuy liggéeyal. mooy seen bopp kese pour satisfaire ambition boo xamante ni yàlla rek xam kañ lay ñëw maanaam nit ku bëgg a nekk président te xamuñu ne yàlla moom mooy fale loolu bi ñu ko seetloo ñu ne ñun kat léegi ñun ñooñu nga xam ne moom la ñu wax léegi muy waa benn Bokk Yaakaar kàddu askan wi ak ñu nekkoon ci fa nga xamante nii moom mooy troisième voie ñooy nañu dajale suñu doole bokk xalaat bokk ay gis-gis pour booloo am groupe bu mag boo xamante ni ci biir conseil départemental bi tey jii mu ngi tollu ci 39 maanaam fanweer ak juróom-ñeent ci ay conseillers ñu ne nañu bokk gis-gis pour que li nga xam ne moom mooy ñàkk dox gi am ci biir conseil départemental bi ñu mën ko redresser maanaam mën ko jubbanti lii moo waral tey suñu ndaje bi moo tax ki nga xam ne moom mooy Alioune Fall nekkoon président. groupe boobu ñuy wax ànd defar cees mu ngi nii ànd ak ñun démissionné na ci groupe boobu ki nga xam ne mooy Aline Fall nekkoon bés du ñàkk ak ñi mu àndal aussi ñu ñëw ànd ak ñun ñi nga xam ne ñoo nekkoon res les Verts ñëw ànd ak ñun ak ñoo xam ne ñoo bokkoon ci euh, groupe boobu ñuy wax troisième voie kaddu askan wi jàpp naa ne këyit gi leen jox yéen ñëpp di ngeen gis ñi ci nekk donc loolu moo taxoon ñëwee nañu dajaloo tey wax leen ne ñun kat. décidé nañ tey fexe lii nga xam ne moo nekk ci conseil départemental bi ñu def tout ba redressé ko ñi nga xam ne ñoo ko yor tey xam ne population bi dafa amatuñu ci ñoom confiance conseil départemental yi amatuñu ñoom confiance moo tax am na ay fukki conseil ak juróom yoo xam ne ñi ngi bokk ci ànd defar Thiès ñi ngi waxtaan ak ñoom ñu xamal ñu ne nañ leen bàyyi ñu waxtaan ak seen base pour que ci ay fan yu ne ñu ñëw mën a booloog ñun ñu mën a révéler à la presse aussi fa nga xamante ni foofu lañ toll parce que suñu objectif tey moom mooy ñi nga xam ne ñoo fi nekk te ñu perdre li nga xam ne moom mooy légitimité bi ñu war a am bis bu ñu demee ba majorité bi dégagé wu ci suñu wër côté ñu xam ne kat ñoom situation bi nii la demee ñu war ci tiire toutes les conséquences pour abal ñu bopp conseil départemental donc lii moom moo doon waxtaanu tey bi dinañu jox kàddu ñi nga xam ne ñoom la ñu fi lim léegi ñu jàkkaarloo ak presque bu wax dëggal seen bokk ci lii nga xamante ni loolu la ñuy def pour que population cees ak Sénégal yëpp xam ne conseil départemental bu cees lii mooy situation bi conseil ya fa nekk jël nañ seeni responsabilité pour bañ kenn saax saaxe wala euh, yàq li nga xam ne moom mooy ndénkaane askanu cees bi donc loolu moom moo doon li nga xam ne bëggoon nañ ko wax ak la presse dañuy jox la parole maintenant au président. Euh mooy